tey dimanche 15 janvier à l'arène nationale ci diggante Zarko ak Ada Fass ndeysaan Pa Abdou Fall moo fi woote woon ñu naan ko Pof Production ndeysaan woo leen ndeysaan kooku toj na nen yàq na cuuj hee ndeysaan damay fàttali keroog ba Modou Lo di bëre ak Balla Gaye feu d'artifice ci lig Nikolaay lañ ko fekkee baax ñu ñëw Gaston xaali meeg defati ko la doon king waaye tay Pape Abdou ko def. fa fa dara ci bis. lamb amul ba su Modou Lo. ndeysaan ak xam ne mooy Balla Gaye. lig ni woote woon jour boobu la fa dara ci bis a ci lamb. am na solo ami Kole li wax dafa am solo. ñëw lig boobu moo ko indi ci lamb. li Nicolas ñëpp dañ koy roy ci làmb ni ñuy royee Gaston Mbengue noonu lañ koy royee muy sëñ Fallou li Nicolas ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla sama borom delloo si waat ci làmb ji ndax ba tey place a ngi ci biir làmb Gaston Mbengue nag boo ko tuddee dinaa ci la doon king de l'arène Gaston mooy la doon king bi làmb eh. kii dugg na ci géew bi kii lu wut ci géew bi lu wut ci géew bi ah nay leer Ada Fass Zarko nday la le le grand arbitre moo koy arbitré ki koy arbitré moo tudd Sitor Ndour kooku séeréer la ci diggante Ada coppare geen aada nee na na nit ñi yëkkati seen loxo bàgg baru ndeysaan arbitre bi nee na wure ba na këng waxi mag dem na ndañ taali bàgg war maam lu waay doon jaay mu lamb ci diggante aada faas ak Zarko kii teg pied droite kii teg pied gauche ndeysaan fausse garde lañ demee aada teg na droite kee teg pied gauche ndeysaan Zarko nga ne tek Ada ne tek combat calcul la combat tactique la hee Zarko bi fi mujjee daa daan ki nga xam ne mooy Baye Mandione waaye Ada Fass bi fi mujjee daa daan ki nga xam ne mooy Coly Faye 2 hee Zarko Ada Fass Zarko mëb na Ada taxaw na Zarko Ada Fass hee li ñu doon wax ay weer ay fan ay bés ndeysaan moo ngi leen bëre leen ee eh, bu tollee fii supporter ya dañu naan tekk waxkat yay wax tëgg mooy tëgg waykat yay way waaye nee naa leen sex tàngal wala ngeen ma ci suukar diggante Ada Fass ak Zarko ndeysaan Zarko wëree Grand Yoff Ada Fass war Fass benn tali hee Medina Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass Khalil dafa mel ni Zarko dañ koo yeb Zarko tey dafa mel ni dañ koo yeb Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass arbitre nee na leen bëre leen Zarko Ada ba tey jo ngay lewtoo Zarko mu nga sëgg mu ngay mel kuy dox ci kawam jiital càmmoñam Ada Fass jiital ndey jooram Zarko sëgg na Ada Fass Zarko Zarko Ada Fass ndeysaan Zarko Ada Fass nee man maay ki ku musta Zarko ne ko dinaa la dóor Zarko Ada Fass tibb suuf hee junjum ya ca Zarko dugal na benn coup waaye yeggul nee naa la dóor buntu la waa loolu Zarko def dafa cokkaas Zarko Ada Fass arbitre nee leen bëre leen arbitre nee na Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass Ada dugal na coup tuuse war na ko droite Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass ñoom ñaar ku nekk benn avertissement Zarko Ada Fass Zarko Ada Zarko ñoom ñaar ñu ngay lewtoo jàppante nañu Ada nga koy biij bañ na ee eh, Ada nga koy jéem a takk Zarko na Ada Fass Zarko Ada Fass Zarko Zarko ngay door Zarko koy faq ee eh. Zarko ngi dóor waaye Ada ngay ngem Ada ngay jéem a faq Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass Zarko ngay dóor Zarko ngay dóor Ada daa juba ga jàpp ngem ee Zarko ngay door tibb na suuf Zarko Ada Fass Zarko ngay door Zarko ngay door dafa bëgg Ada siggi Ada bañ na Zarko moytul ma wetu Ada Fass gi Zarko Ada Fass Zarko Zarko Ada Fass xale yaa ngay bëre Ada Fass moo ngay siggi waale Gaston Zarko waaye Zarko puus na ñaari tànk arrière ci ginnaaw hey Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass ngay dóor ca ginnaaw bëgg na aada siggi Zarko bul forcé Zarko bul forcé eh, Ada mboot la bëgg Zarko bañ na sol na ko naax Zarko bañ na Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass Zarko eh mboot mboot Zarko bañ na Zarko ngay door Ada Fass Zarko l'expérience face à la jeunesse Zarko Ada Fass laay la Zarko daan na Ada Fass Zarko daan na Ada Fass laa ilaaha illallaah Zarko daan na jógal foofu Cheikh Dieng xoolal lii xoolal ci image làmb lii ñëw na ci limaasu làmb arène nationale 32 milliards lañ ci def lii sunu patrimoine national la ñoo ko moom bu ñu ñu koy yàqal ci benn bésu làmb hey waaye xalil Zarko daan na Ada